gannaaw jógeeg président Sall ca euh, Touba am na ay rumeur yu commencé wadd bala ñoo dem ci ki nga xam ne nee nañu euh, doomam la euh, président Sall wala sax na ñu dem ci bu fekkee élément bi pare na Moodu ñu dem déglu ki nga xam ne moom mooy Serigne Issa Mbacke di doom ci Serigne Moodu Serigne Mountakha mu Mountakha Mbacke lan la wax après ñu dellu si waat sama téléphone maa ngi jot appel yu bari ñuy laaj ndax euh, njiitu réew mi bi mu ñëwee sëriñ bi def koo dalalul ma jàpp ne loolu de sa xalaat bi rek euh, ku am xel dara da ko xalaat ndax euh, njiitu réew suñu boroom moo koy tànn moo koy moo koy moo koy tànn kilifa la toll ne Cheikh mun Muntaxa ku nekk xam na tolluwaayam ku nekk xam na fi réew mi toll njiitu réew mi ñëw ci moom ngir waxtaan ak moom foofu dama leen leeral rek ne leen bi mu ñëwee avant muy am juróomi minute ci salle bi seriñ bi génn na waxtaan ak moom waxtaan bu yàgg hmm. waxtaan wi it waxtaan woo xam ne ñoom ñaar kese la damaa jàpp ne daanaka ku la ci wax sax lu ñu waxtaane ku dut ñoom ñaar wax la loo xam ne ni xëy na wóoru ko waaye gise gi am na ci anam yi mu war a amee yu yàgg te bi mu agsee rek avant muy mat juróomi ministre bi gën gise nañ ñoom ñaar gise bu yàgg li ñuy wax huis clos wala ko tête boo xam ne ñoom ñaar kese la def nañ ko moo tax ma wax la ne sax dañu waxtaane moom ku dul ñoom ñaar jàpp ma ne hmm. bu la ci waxee dara dana la wax lu ko wóor waaye gise bi moom am na wér na kooku mooy Serigne Issa Mbacke ñoo ngi koy nuyu moom Arona euh, Cissé ci moom la ñu jëlee élément boobule foofu la ca Touba di doom ci Serigne Fallou Cissé jërëjëf Arona Assane euh, gannaaw xabaar yi wax naa la ko démb damaa xamul woon lu sabab wax jooju li ni président dem na tuubaa ba ñëw gisul sëñ Mountakha man jaaxaloon na ma te defe naa ni loolu doomam ji weddi na ko ndax da jàpp ni euh, lii doomam ji dëggal dafa am fu mu ko teg wala ndax gaa yi li ñuy wax ñoom dafa fu ñu ko teg. waa xanaa di sant yàlla bu baax rek maa ngi nuyu Saliou koom ak ñoom njaay tubaak ak mboolem tiktokor yi ñoom Fallou mboolem tiktokor yi nekk Touba tey wax ñu leen di diglu maa leen di nuyu. loo leen di nuyoo. waaw damaa gis ñenn ñi def si vidéo. daal leer na leer yàlla dañ leen a saraxe. daal ni lan lu ñu wax. ko demee ni sëñ Saliou dégg naa mu ni gars yi information bi président Macky Sall gisut sëñ Mountakha ñëw na ba sonn gisut. ah oui waaw Saliou Xelkom wax na ko. ak kan bi ko waxee sax maa ngi noonu dama koy woo ak ñeneen ñi nga xamante wax nañ ko ñenn ñi moom ñu ngi si audio groupe whatsapp yi xam naa moo tax rime bi daal di bari waaye li wér te wóor président Macky Sall même bu demoon Touba gisante wut ak sëñ taxaa du deli boo xamante ni nit ñi war nañ ko manifester ah, ah, kay non non non non ah, kay du deli ku toll ni njiitum réew dem soxla soxla mm. kilifa jiite murid yi waaw ñu ne sëñ bi gisante wut ak sëñ bi waaw ah loolu Assane du nuyu loolu. wër na yàlla du deli. Hmm. waaw ay ci ñëwal. tey jii sëriñ sëriñ bi mën naa président Macky Sall mën naa jóge fii bu fekkee yëgluwul. président bi dama ne bu fekkee yëgluwul laa la xam nga pour pour pour. bette sëñ bi bette maanaam président bette. waaw de xam nga dama dama dama ne la bu fekkee ni fekk ko fa da nga ne ma dama ne la du deli. Hmm. li tax man teg na deli dama ne tey jii bu rekkoon dafa jóg léegi dem dem fekk ñu ni sëñ bi fattu na te amul kenn ko xam ne mën naa dem woo ko wala dara. keneen si njaboot gi mën na koo dalal mu wax ko li mu ko bëgg a wax mu dem te loolu garaaw dégg naa la dégg naa léegi nag kon lan moo tax sëriñ bi ñëw gisee ak président Macky sàll ñoom ñu taxaw kut ko kut ni gisu ko dafa wër sa gis wala lan ak beneen bi lan moo tax kut ko kut ñu ni lii lañ waxtaane waaw loolu dinañ ci ñëw sax am na am na ñu bind hmm? li ñuy waxtaane waaw kon wax dëgg yàlla war nañoo xoolaat ñun suñu toogin bu baax a baax a baax d'accord xoolaati suñu waxin baax te moytu ñu ñuy saraxe man mii information yu bëri dañ koy jëlee si kër Sëriñ Muntaxa di ma ko jox mais mosuñu maa jox benn ba ma jàllale ko ah waaw ndax da ngay bañ ku la saraxe damay bañ ku ma saraxe am na ñoo xam dañ lay wone la sa booy lii di exclusivité la xoolal Sëriñ Muntaxa xoolal Macky Sall am na fi une heure de temps wër na yàlla gisul Sëriñ Muntaxa te moom ma nga yem sa buntu ba moom mi la koy moom mi la sa buntu ba la yem sa rond point ba ah d'accord xam la nekk loolu mënta ne ne rek nga sukkandiku si kooku naan kii xibaar bu wóor la kër sëñ ba la ne fekk na kër sëñ ba yenuy bool la fa nekke ah, daa am na fa ne yenuy bool am na raxasu yenuy bool ak joxe ak toogeel ne organisé ah, muur d'accord d'accord léegi nag bëgg xam la nekk sa biir yow jëg jëg eh, xibaar bu kër sëñ ba la ki ma ko jox kër sëñ ba la nekk rek nga jàllale loolu bu leen koy defati d'accord mhm. alaaji gannaaw kon xabaar bi de li doon wëndeelu démb am na lu ko weddi tey te ka ko weddi doomu sëñ bi la waaw xam nga euh, boo seetee man parrainage Sénégal euh, dañu nekk ci loo xam ni. man jàpp naa ni euh, détail la pour man. Hmm. waaw parce que le fait que président di dem rek bon gisanteem moom loolu assuré na ba pare. Hmm. waaw parce que président tamit buy dem euh, du Assane Mesere muy jóg rek dem seeti ji diw. dëgg la maanaam président ci biir kër sëñ ba am na ñoo xamante ni bii. danañ ko wax sëñ baa ngi fi wala mu ngi fi. Mhm. way la mu wax ak sëñ bi ba pare di soog ko dem. soog loolu il faut que ñu teg yooyu tamit xam ni yëf nii lay demee. Mhm. donc président jóge fi déplacé wu dem ba ci sëñ Muntaxa ñu ne gisu ko loolu bu boobaa man jàpp naa ni sax euh, te fi jamono ji toll président jóg dem. Mhm. ba ci kii ñu ne gisut kii loolu defe naa ni sëñ Muntaxa sax lañuy ñuy waxal loo xamante ni bi jaaduwut. parce que dafa mel ni ki jóg moom dafa jóg daal ne fii de laa mën a dem pour jàmm mën a delsi ci réew mi mu ñëw nga gàntal ko pour parce que loolu la wax ji di firi quoi te defe naa ni loolu moom amul benn sëriñ boo xamante ni bi dana def loolu kenn njiitu réew ñëw parce que dëkk bi liñ ci bëgg ñun ñëpp mooy jàmm am ci réew mi le fait que président dem moo tax démb bi mu ñëwee dama ne président bu demee ci sëñ Muntaxa génn ñu gis leneen lu dul jàmm bu boobaa. Euh, bu ëllëgee moom waru koo gis. Ah. parce que jàmm rek moo war a am. waaw ah, ah, parce que sinon day mel ni kon lu ñuy politiquer. Mm-hmm. parce que sénégalais yëpp li ñu mën a jàpp mooy président dem na ci euh, sëñ Muntaxa. Mm-hmm. amul lu fa mën a judd lu dul jàmm moo fa war a moo ci war a judd. Mm-hmm. comprendre nga. léegi nag le fait que nga ne sëñ bi gàntal na ko. Mhm. loolu nekkut loo xamante ni bi wax ju mën a dugg ci bopp la. man de wax dëgg fa yàlla wax jooju mënut a dugg ci sama bopp. d'accord daal ñi ngi ñaan. Mhm. Euh, lañ fa waxtaanee ak lu mën di doon man xam naa ni jàmmi réew mi la ñi ngi mhm. ñaan nag ki nga xamante ni kii mooy président bi nga xam ne bal baa ngi ci kanam. jàmm jooju mu tàmbali koo doxal mu gaaw lool parce que hmm. sénégalais yi dañ koo soxla mbir yi gaaw ñu commencé libérer ñi nga xam ni ñooy détenus politiques yeeg et cetera yëpp ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen i kër hmm. ñu gis ni jàmm ngi xeeñ yii nga xamante ni bi tamit dugg nañ ci ñu xool nuñ ci génne justice mën na lu ne ginnaaw ñoom tëju woon nañ ba bind ne nii ne peut faire plus de deux mandats consécutifs jekki-jekki ndaat ne nii boobu nii ak naak ne le bay wut kii donc mën nañu lijjantiwaat mbir mi balaa xarti ko ba jàmm dellusiwaat ci réew mi d'accord